wàllu manifestation yoo xam ne dafa am ñu koy wootee ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ndax état bi dafa am euh, taxawaay bu mu ci waaj donc defe naa mi ngi Maram Ndiaye moo ko posé euh, beneen bi ab sa an wax na ne diggante fii ñu ne ci ndakaaru ak la sud du Sénégal dafa am ay restriction bato bi ñuy wax Aline Sitoé Diatta doxatul ni mu war a doxee dematul dikkatul euh, route nationale numéro 2 bi tamit dafa am waxtu yoo fa mën a jaar ak waxtu yoo fa mënta jaar Pape Fara bu bu TFM wax na tamit ne boutique yi euh, bëri na ci ñoo xam ne dañuy yokk seen njëg ndaxte grande surface yi doxatul ndax yu ci bëri dañ leen saccagé dañu leen toj. ma tàmbalee euh, laaju Pape Fara Niang dëgg la yu mel noonu mën na am constaté guñ ko mais mën na am ndax looloo tax yàq baaxul euh, dañuy wax ne nit day defar mala mooy yàq. te fi mu ne li nga xamante ne moom lañ seetlu mooy jàpp nañ ne képp koo xam ne da nga am lu métti wala da nga am noo bëgg doxalee li ngay ñëkk seet mooy li ñëpp bokk wala sax li nga xam ne sa mbokk sa dëkkandoo moo ko moom nga yàq ko te ci événement yi passé gis nañ ko bu njëkk ba dañ daan wax Auchan dégage naan woy tubaab yi mais Auchan boo fa demee 70 euh, wala 90 pour cent 80 pour cent produit yoo fa ne ay sénégalais ñoo koy defar. ay usines Sénégal ñoo koy defar ndox bu jógee Sénégal moutarde bu ñu defaree Sénégal mais boo xam ne entrepreneur sénégalais moo ko defar jaay ko ñoom butik lañ rek bu dajalee ay produit yu jàmbur di ko jaayaat. bu ñu demee nag ba ci suñu taxawaay ak suñu doxalin ñu ngi yàqal ay sénégalais seen liggéey ndaxte fi mu ne nii kenn mënu la wax ñi nekk chômage technique ndax événement yi nu mu toll ñu ngi yàq produit yoo xam ne ay sénégalais ñoo ko fa defar. dem nañ nag ba fi mu nekk nii li nga xam ne mooy diversité bi nga xam ne moo war a andi concurrence ni mu amee ay rajo ak yu bëri ba ku ne fu la neex déglu noonu la war a amee boutique ak magasin yu bëri ba ku ne fu la neex jënde fu njëg gën a yombee nga jëndee fa mais bu ñu demee yàq boutique yi yàq grande surface yi day tax mu wàññeeku ba ñi nga xam ne ñoom ñoo yor produit yi ñu néew lay doon te bu leen neexee ñu ñu ñu ñu yokk prix yi loolu moo tax ñu war a dal te xam ne am na loo xam ne bu ko defee suñu bopp lañ koy def Euh, wax nañ sànq sax ci wàllu transport naa ci dellu si Dakar dem dikk bu ko leeree ne busam bu jaaree ñu yàqu mu téye ay busam du dëgg euh, li ñu war mooy service public nit ñi di dem di dikk waaye nag day fekk mu jur jàmm mais doo jël oto boo xamante ne état moo ko moom jël chauffeur boo xam ne dañ ko fay weer bu dee mu jël ay nit leen yóbbu fu ñu dajee ñu am lu ñu ci def loo xamante ne euh, nit ka fa ne mën na ñàkk bakkatam kaar ba tamit dana yàqu yàqal jëleen ñoo xamante ne dañoo bëgg def transport donc loolu yëpp pour fàttali leen rek ne yàq moom du yëfu nit yàq du yëfu nit nit mën ngaa wax lu la naqari comme ni ñu ko xamee ci Sénégal mën ngaa marché mën ngaa def lu ne waaye lu nit ñëpp bokk wala alalu sa morom boo xam ne xamoon nu mu def ba am ko nga yàq ko loolu du li gën donc ministère du commerce saa yu euh, xew-xew yu mag jibee moo xam màggal la moo xam gàmmu la moo xam tabaski la moo xam korité la moo xam rentrée scolaire dañuy gën a yokk surveillance marché bi ngir nit ñi di mën a respecter prix yi te loolu ñu ngi koy def euh, leneen li mooy transport wax ngeen ko sànq euh, diggante fii ak euh, bët saalumu Sénégal am na ci loo xamante ne dafa am ci wàllu restriction waaw bateau Aline Sitoé Diatta amoon quelques difficultés technique ba tax mu taxaw mais restriction yeneen yi nga wax mooy RN2 restriction yi nag yàgg na ndaxte bu leen fàtte ne depuis euh, li nga xamante ne mooy accident bi amoon Kaffrine ci commune commune Kaffrine fi ñuy wax euh, kilo ci wër booru ñii bi amoon na xew-xew bu fa amoon ba tax état bi restreindre li nga xam ne moom mooy euh, heure yi nga xam ne moom la camion yi di daw ñun nag sécurité mooy priorité bi ndaxte balaa nga naan naam ne fa balaa ngay wax xar balaa ngay wax pombiteer balaa ngay wax soble balaa ngay wax mbubb boo sol ci tabaski da ngay njëkk a wax kaaraange ndaxte boo ko fekkeewul doo mën a tal loolu yëpp looloo tax état du Sénégal li muy jiital mooy kaaraange tal yooyu bu fekkee dafa am jafe-jafe am na ci restriction yu ñu ci def léegi nag restriction ngeen wax waxu leen tëj tali yi kenn tëju ko ndaxte boo bëggee dem sud wala nord foo bëgg dem ci Sénégal <clears throat> mën nga jël bateau mën nga jël tali tali bi tamit dafa am waxtu wuñ koy ndax question de sécurité waaye am na tamit waxtu yu ñu ubbi donc ñi war a tukki am nañ waxtu bu ñu mën a dem waaye loolu yëpp ni ma ko waxee sànq rek bu ñu fekkee ne oto yi nga xam ne Dakar Dem Dikk moo ko moom te ñu jublu ci sénégalais yi amul oto mën di ci dugg di fay lu néew lu yem loo xam ne état bi da koy subventionné bu ñu ko yàqee du Dakar Dem Dikk lañ ko yàqal. ñi ngi ko yàqal mooy ñi mënul ñi yorul seen oto te war a mën a dugg ci bus bu mel noonu di fay di am confort bi ñu am ñooñu lañ ko yàqal te nag wax dëgg yàlla bu fekkee dem ak dikk bi gis nañ ci jafe-jafe yoo xam ne ku koy dawal bakkanam garanti wuñ ko. sécuriser wuñ ko ña nekk ci bus bi sécuriser wuñ ko bu boobaa li état di def mooy jël responsabilité toppatoo li nga xam ne mooy sécurité. beneen question bu mujj bi euh, mi ngi madame Ndiaye moo ko tudd wax nga manifestation yoo xamante ne dañ koy waaj le 25 juin. Euh, ndax état bi dafi waaj dara defe naa ne bu ñu waxee manifestation ci jamono ji war nañ taxawaat ñu xoolaat suñu bopp yeddaat suñu bopp ndaxte réew mii ñu ne dafa am ñuy politique. am ñuy jàngale am journaliste yu mel ni ñeen am ay commerçant commerçant yi nag ñoom dañu am seen wàll ci réew mi seen wàll mooy ñu dimbali leen ba njënd ak jaay gën a yomb te njënd ak jaay mënoo ko def ci lu dul kaaraange li ñu seetlu mooy bi xew-xew yi amee jamono yële am na commerçant yu ci seen bakkan génn seen bakkan rot yàlla na leen yàlla yërëm am na ci ñoo xam ne li ñu perte ci matériel perte ko ci ay euh, bagages kenn xamul lu mu toll. man jàpp naa ne bu ñu leen joxee cër bu fekkee respecté nañ leen te bëgg nañ tamit ñoom it euh, ñu euh, seen xel dal ci réew mi ba la ñuy daan def ñu koy def dañu war a fexe ba ñu garantir leen seen kaaraange ku am sa ay mbokk yu faatu defagul ñaari ayu bés ñu toog naan la ñu ngi defaat manifestation defe naa ne loolu ku am xel du ko wax ku ànd ak sa xel du ko wax te nit ñi nag dañu war a xam ne nguur yàlla moo koy joxe lu caagin ne dangay ngay xëy rek euh, woote fii taal fii puna yàlla jox la nguur déedéet nguur yàlla moo koy joxe te Sénégal li ñu aadoo mooy joxe ko ci élection ci élection lañ koy joxe donc li war a am mooy ñu respecter commerçant yi. déy maanaam ci fii tiis ak njàqare bi ñu nekkee ndax seen njaboot yi nga xam ne am na ñu ci seen bakkan dot ñu respecté loolu. ba li nga xam ne mooy dëj bi paase ñaareel ba ñu ci bëri dencaguñu ñu génn àdduna ñetteel ba la ñu yàqule bëri na bëri boo xam ne ku am xel dëgg te yéene sa réew li nga war a def mooy di tabaski bi nga xam ne bokk na ci jamono yi ñu gën a sopp ñoom ndaxte dañ ciy jaay lu bëri ñu may leen ñu jaay ba noppi ñu may leen ñu liggéey as tuut koo yàqal mën ko may mu liggéey mais bu fekkee ci jafe-jafe yooyu euh, sa sa mbokk kanam rot na ci sa liggéey yàqu na waxtu wi nga war a liggéey ñu ne la doo liggéey ndax dañuy manifester te manifestation ci Sénégal dafa am nu ko constitution bi tëddee dafa ne principe bi mooy ku la neex mën nga manifester principe la te dafa ne manifestation pacifique boo leen ubbee article 10 ci suñu constitution waaye li mu ci teg mooy loi ak règlement nag moo koy organiser dafa mel nii rek ma ne la doom may naa la sama kër dëgg la may naa la ko waaye pour doon dëgg faaw nga dem ci notaire faaw nga dem impôt dem ci maire mu defal la këyit bu koy wane manifestation tamit principe bi mooy ku la neex mën nga koo def waaye nag balaa nga koy def li yoon wax mooy da bind ki nga xam ne mooy préfet wax ko ne da ngay manifester mu am diir boo xam ne balaa ngay manifester da nga ko war a bind moom mu xool jàngat ndax amul lu muy yàq ci askan wala ndax amul ku muy yàqal keneen. man nag du ma ministre de l'intérieur dina leen wax mook préfet yi lu ñuy def waaye fii ñu taxaw temb de jàpp naa ne sénégalais bu ne war nga am kersa. ci jano commercant yi di leen xañ seen liggéey ndaxte boo déggee léegi li ministre bi wax ci wàllu xar yeeg yu demee noonu problème bi lu ci bëri dëgg la Dakar dafa bëri chantier ba point de vente yu bëri dafa wàññeeku mais lu ci bëri mooy li taxoon retard bi am mooy seen xel bu ñàkk a dal ndax bu ñu àndee seen alal dañ koy yàq wala nangam ak nangam am na sax ay groupe whatsapp yu ñuy dégg nit ñu naan ku fi andi xar nangam ak nangam te lool boo defee askanu Sénégal nga koy def mais comme ni ko monsieur le waxee gouvernement jël na matuwaay ci kaaraange. point de vente yëpp mu am kaaraange ak point de vente yu ñu organisé ngir nit ñi mën a dernière semaine bi nga xam ne ci la ñuy gën a jënd ay xar mën a am ay point de vente yoo xamante ne dinañ mën a jënd dinañ mën a am taxawaay bi ci war.